waaw waaw nee naa leen bu wax ji bëree ñoom la waaye bu jëf ji bëree jotaat sa kàttan la ayca moo ngi noonu nee naa leen jotaat sa kàttan di garab bu ñu defee si suñuy reen jotaat sa kàttan di garab bu naturel te efficace yow mi nga xam ne da ngaa am néew kàttan demal jëfandikoo garab gi di nga jotaat sa kàttan yow mi nga xamante ni da ngay gaaw a daanu bëgg jot sa kàttan jotaat sa kàttan moo ci gaaw jëlal garab gi nga jëfandikoo ko di nga gis résultat yu leer jotaat sa kàttan kër gi mën a neex lool ba jéggi dayoo yow mi nga xamante ni jigéen nga amoo li nga xam xamante ni mooy bànneexu ci néegu sëy jotaat sa kàttan moo ci gaaw jëlal garab bi nga jëfandikoo ko bu ko defee foofu mën a neex waaye yow mi nga xamante ni da ngaa amee hémorroïde moo xam externe wala interne jotaat sa kàttan moo ci gaaw waaye képp koo xamante ni bëgg ngaa jëflanteeg waa ji adresse Mbour école 3 numéro yaa ngi noonu si suuf jotaat sa kàttan mooy neexal kër gi kër gi mën a naat. Liss Ndiago moo ko daan. waye ki nga xam mo de Siteu Siteu ba fi jóge aline sey ko dal day san jël tank ba waaw waaw ñom ñaar ñep ci defet lañ joggé mu bëroonoo nak mbeur mbeur mu am expérience waaw waaw cette cette fois ci mu ñëwaat waat ak jëraat mbeur mo xamante waaw dafa expérimenter ci walu bëre xam lu ma neex xam na lu ma neex ñom ñaar dañu tolo ci poids tolo ci ci tay dañu bëre dañu xex ci bamba ci tay taxawaayam la la wara mëna mën a nekk ci làmb moo di kan Siteu bu bu gor ñëw tey indil jihaat ki nga xam ne moo doon Naar Sogas bu mu ko déglu bu mu ko jox cër waaye Naar su ma doon maay moom damay toog samay tànk taxaw aw ma dara lu may wut si làmb ji loolu booy bi ñëw ma jumloo ko jàpp ko daan ko. macha allah am na solo waaye ñoo ngi nuyu. waaw borom Touba Taïf Koro. waaye xale loolu sa kër la. nee naa la képp koo xamante ne bëgg nga kara bu baax. waaw demal Touba Taïf Koro. waaw ndeysaan dañ la koy defal. ci anam bu nice. waaw livré la ko ci gratuite taxaw la jox la ay karaw yu rafet bu ko defee. ba pare ba pare may la ay sanitaire nga yóbbaale. waa li neexul. loolu Touba Taïf Kara rek la am. ndeysaan kon gars yi képp ku bëgg kara bu baax demal Touba Taif kara arbitre ba sifflé na na moo tax ma ne la ku yaay di jàmbaar doo daw xare moo tax ma ne la laa ilaaha illallaah Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam xëstaali moo nekk si caméraman bi la jinne dee caméraman waaye ki nga xamante ne moo di xalilullaay xaritu yàlla bi ndeysaan ak jibi bamba moom mi nga xamante ne bu waxee àdduna wépp dañ koy déglu déggal lii yaram ndeysaan tegginam ndeysaan jox

dina mel tuk sa bonna sañ bëri ma la xamal lolu nga duggu ba Gambia wo ma la ñamal lolu ñu ne la lay nga leen abidjé oh way xalil na na la Omar saliw waaw ak wa Senes production waaw Jibi Bamba waaw lolu du mën yom yomb du mën a ñàkk ñaan waaye ñaane ñaane mbër ngay lewaatoo ñoo ngay tabu ngor ak nga xamal mori naaru déplacement latéral wala lan taxaw ben place ci ndaysan ndax bu ñu dé la mu ji jeex mais tay dafa dal par rapport ak combat bi xana xamone na lamb c'est première défaite leçon la. waye reug reug waaw Boña. reug reug maa ngi ko gis ci kaw Siteu. moom daa ñëw indi Siteu bu ngor. ndaysan maa ngi gis mu dajé mom ci buntu bi. laa ilaaha illallaah. fëgg auto bi ne dama koy dama koy duma dama koy daan. ndaysan mom reug reug waye ci Siteu bu ngor moytu la génn am avertissement tolloog naar sokas ndaysan naaru naaru sëkkatal na ko de. ñoo ci côté man damaa gis sens contraire. loo gis. dama gis na li si li naaru di def la si da waroon def. ndeysaan waaye lamb du du xëy biir du du day biir day xëy wës rek lu nekk lu ne. lu nekk si lamb. waaye Siteu moo ngi làng ak moom ci côté waaye Fourier daan na fi caatu Jolof jël bu rëy. Fourier nee naa leen tolof tolof mënut a waaye ñëwaan na moom fourrière. mais jege nañ saa yi de. ndeysaan. ndax naar bu déclenché croisé gauche croisé droite Siteu bu Ngor du génn saako yi. bu ci déclenché dajeeg sa morom. waaw waaw. bu kuuti jug ñuy daje. Siteu bu Ngor naaru Sogas. instant na dañuy naxante ni ñaar xale. waaye sama xel dem na si. avertissement du am. léegi du mun a ñàkk ndeysaan. avertissement. Kaana Boy a ngi nii wala grand champion la. loo bëggee Xalil. nga gisee lamb tay bi. waaw lamb tay ji lamb mag la ak xale. mais Siteu bu Ngor warul nangu naaru Sogas diriger ko. sama xalaat parce que moom mooy xale te daa am ci lu mu jógee. même taxawaay bi tamit d'accord ma si pied gauche am bële li mu dafa bëri taxawaay bi dëgërul su naaru gëddee. ko yéegee coup su arrière du am résistance day toog su jëlee coup rek day toog parce que tànk bi écartement bi dafa bëri trop tànk gauche am bële li mu tëdd ci droite bi dafa bëri ndeysaan moom si dër naaru tey taxawaayam la la war a ma nekk ndax nu muy nii d'accord nga ko moom naaru naaru taxawaayam waaw d'accord naa ci lii parce que moom mooy mag la la lamb amul lum si amatu si avenir mun naa wax Siteu mooy avenir u lamb moom fi mu toll nii moom la lamb di bàyyi xel naaru amul lu muy perdre si combat bi Siteu a diriger combat bi mooy xale moom la làmb gën a yaakaar ka naaru mais warul bàyyi naaru cadré ko nii da koy jëloo avertissement léegi dañuy tolloo. Mm-hmm. mais bu ñu bëree woon ci axial kan euh, avantage bi ci kan lay nekk bu ñu bëree woon ci digg géew. avantage bi ci ñoom ñaar naaru moo dàq bëri. ci axial ci digg géew ci axial ci digg géew bi naaru lay gën a arrangé. Ah, ok voilà. Siteu bu Ngor bu ëpp doole naaru pour mu daan ko tey jii si combat bii nii du yomb. il faut mu jëm koo teg lu metti pour mu mën a am ndam quoi sama gis-gis mais warul bàyyi naaru di ko def lii gis nga day jël avertissement. ab doxal la yéen Kaana Boy. waaw Jibi Bamba. Siteu bu Ngor. naaru Sokaas avertissement. mais beneen avertissement bi pour lan ñu koy jox naaru. naaru am na benn avert am na deux avertissement. waaw benn bi benn bi d' accord sortie dañuy dagg sa xaalis direct. waaw est ce que nekkul loo xamante ni danañ wax ñoom ñaar pour ñu bëre ñaari mbër waa waaw waaw mais kon dañuy jox ku nekk avertissement mais naaru mooy diriger combat bi moo ko seet saako yi arbitre soufflé andiwaat leen. jox naaru sogaas. avertissement joxul Siteu bu Ngor avertissement. ah joxul Siteu bu Ngor avertissement. loolu d' accord ma. amul avertissement. te Naaru mooy diriger combat bi. mooy arrière. waaw waaw Khalil. Naar Soka am na deux avertissement. waaw avertissement bii nag moom nanguwuma ko. bi mu arbitre bi mu mujjee def nii d' accord ko. d' accord ko non ko. kaana booy xamuñu fan ko war a teg ba avertir ko lu naaru def. waaw mooy dox ci kawam. du yoon waaye waaye Siteu Siteu bu Ngor naaru sokaas. lewaat boobu gën na dey de. mais tànk bi tànk bi. waaw bi si teg. waaw comme li Kaana wax léegi Kaana booy li mu wax léegi léegi. li mu ràcc daa bëri. ci kanam ki nga xamante ne mooy naaru sokaas. maa bu dewee jël du du du tànk ba. ah. parce que tànk bi tegul da am résistance tànk góosam bi écartement bi dafa yaatu. tànku gosu cité bu Ngor bi écartement bi dafa yaatu tay suko ko naaru chargé fii nii ci saako ni nii soit day génn saako yi su ci jele coup de am résistance day tok bako la gëna chroniqueur la mooy gëna kana Boy. kana Boy Khalil. neena da xam lamb way khalil est ce cité bu Ngor limi muy yoon cité bu Ngor cité bu Ngor ñaaru daw na jàppante. ku ya ngay dal de. la mo nar xew. faqat mom naaru sokas cité naaru. waaw waaw. cité naaru. ah Siteu jàpp na Ndaro ngay xeex. eh eh la ilaha illallah. Ndaaru Siteu. Ndaaru Siteu. war na ko nomba. moo ko ngay dóor. Siteu ngay dóor Ndaro ngay bañ. daanu na Siteu am na ndam. la ilaha illallah. Siteu am na ndam lu rëy. daan na ko waa Siteu mi. Siteu bu Ngor daan na ko. tey stratégie la bëree. tey daa bëri xam-xam. tey xel la bëree. xam-xam la bëree. waaw li li naar waroon a bëree moom la Siteu bu Ngor bëree. da ko da koo bàyyi combat bi. naaru amul lu muy amul woon lu muy diriger ci combat bi. kële mooy xale moom moo wut si da ko waroon a xaar bëri ci expérience am. bàyyi Siteu diriger làmb ji. waaye naaru Sokaas a ngi doon démérité wul. sa rakk la daan wala sa jarbaat waaye Siteu bu Ngor daanaan la de fan la Siteu bu Ngor jëm. xale bu Siteu bu Ngor jëm. ndeysaan am na am na am na luy xeeñ ci suuf. lan mooy xeeñ ci suuf